revue de presse bi ñoo ngi ci ànd ak Serigne Khadim Fall alxuraan. ah Serigne Khadim Fall alxuraan. am na lu be sàkk lu leen indil yéen ñi nga xamante ni da leen nekk ci ay jafe-jafe rawatina ñi nga xamante ni caabi da leen na féete kanaaw mbaa ñuy bañ a dugg kaso suñ xaadim faal alxuraan am na ci loo xamante ni baat la boo xamante ni ku yàlla jaglee amoon ndimbalu suñu borom wala daje wook mag mu baax moo xam ne wax na la secret baat boobu doo xam te baat boobu képp ko suñ xaadim faal defal bu soobee yàlla doo dugg kaso waaye yemul ci loola ndax yow mi nga xamante ni da ngaa bëgg listixaarlu muy seet ci say mbir loo xamante ne dikkagut wala daa nekk ci yoon wi wala loolu lépp sam bopp la woowal sëñ Xaadim Faal alxuraan boo ko wooyee incha allahu rabbi wàllu woowu dina la fete yéen nga xamante ni tam da ngeen di yëngu ci wàllu football sëñ Xaadim Faal dalay li si xaaral li si xaar gu leer nañ wax la équipe bi wax la joueur yi dugal seen tur ak seen numéro koy génneel kon loolee ku ko koo xam ne bëgg ko jokkoo la ki nga xamante ne mooy sëñ Xaadim Faal alxuraan waaye yemul ci wàllu woowu ñaari waay aji dencante yi nga xamante ni da ngeen a nekk te bëgg kenn ku ci nekk topp sa morom jokkoo ak sëñ Xaadim Fall mu noobal la ko ba nga xam ne xelam kenn dootu ci ne bëtam kenn dootu ko fees waaye xolam tamit kenn dootu ko ma ko dul yow waaye nee na yow mi xam ne di nitu àdduna nga wala nga yor place di jaay wala nga bëgg bayre boo xamante ni bayre bu mucc ayib la ah sëñ Xaadim Fall am na bayre boo xam ne bu la ko defalee lee ak boo deru bukki ba jox la ko yamut ca loola am na ci ndomba loo xamante ni nag na leen kooku mooy sànni tàccu bi képp ku ko bëgg daal fexeel ba jox ak sëñ Xaadim Fall mën ngeen koo woo ci numéro yi 77 255 29 74 77 255 29 74 mooy numéro bi nga xam ne ci nga mën a jote sëñ Xaadim Fall lu mu ci mën a doon jokkoo ak moom incha allah rabi taala suñu borom da ci la defal lu kawe sax njort wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. laata ñuy door revue de presse bi nag ñu jox leen xabaar bu neex bi ndax seen chaîne YouTube bi tudd King Ouse Ngary TV dafa am rak rak ji mi ngi tudd Univers Vibe TV dinañu def lien bi ci commentaire yi ngir ngeen daw abonné ji. univers Vibe TV nag lépp lu jëm ci actualité incha allah dañu ci bëgg ñëw ak yéen moo xam culture la éducation esport bi ngeen miin ak King Ouse Ngary TV bàyyiwuñu dara ba ci people lépp incha allah dinañu ci ñëw ak yéen dañoo bëgg sénégalais yi lépp lu ñu soxla rek ñu am ko incha allah. programme yi nag dooragul waaye balaa yàgg dinañu ko door ñu door revue de bi dooree ko stade yéenekaay Ismaïla Sarr di doomu Sénégal le journal di fësal cë xët wu njëkk waaye nekkit futur sóoru Crystal Palace moo tax journal bi sampo ab laaj Ismaïla Sarr nag est-ce que du saison bii di ñëw dina amal saison bu baax ndax moom mii di Ismaïla Sarr géej naa amal ab saison bu baax daaw dafa jógee woon ca Watford dem ca Olympique bu Marseille waaye kat amalul saison bu baax ak waa Olympique bu Marseille mi ngi ci yoon nag ngir wutali réewu Angleterre club bu ñu naan Crystal Palace lépp yemb na waaye officiel la gud kon nañu ko ñaanal balaa yàgg waa Crystal Palace officialisé ay mbiram mu dem ca Premier League nga xam ne miin na ko lool doxal moom Ismaïla Sarr Sarr journal bi tamit ñëw na ci yogoon club moom nag moo doon tàggat Liverpool bi saison bi jeexee la xamle ne bàyyi na foofee ca Liverpool ñëpp ngi doon xaar nag ci ban club lay dem wala ci ban équipe national lay dem waaye moom démb la xamle ne bàyyi na coach maanaam jamono ji dootul toog ci benn banc di tàggat équipe national wala ab club démb la xamle loolee moom yoogoon club journal bi tamit fàttewul équipe nationale basketu Sénégal ki leen di tàggat tudd Ngagne Desagana Diop wax na nee na moom bëgg-bëgg bi mu am di waaj waajal ëllëgub équipe nationale bu basket bi maanaam futurub équipe national basket bi nee na bëgg-bëgg bi mu am moo di tabax équipe bu mag ba noppi indi ay gone yu mën li ñuy def loolee la xamle moom Ngagne Desagana Diop moom mooy tàggat équipe nationale basketub Sénégal. ñu jugee stade yéenekaay dem groupe Futur Média fekk fa record yéenekaay Thierry Henry mi tàggat équipe nationale U23 ak capitaine équipe nationale U23 bu France le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa France googee nag suba match bu mitti moo leen di xaar soxol quart de finale Jeux olympiques bi Argentine ànd ak Otamendi la ñuy jàkkaar lool match boobee nag revanche la waaye tamit taarix du ko fàtte ndax diggante Argentine ak France dafa xaw a ñagas lool jamono ji ci wàllu football waaye tamit match boobee revanche la ndax ci atum 2022 Argentine moo jël coupe du monde bi ci kaw France ca tiir au but suba nag dinañu jàkkaarloo mu soxal quart de finale jeux olympique bu 19 heures jotee la match boobee di door kon nag xaar leen match boobee nga xam ne adduna gépp ngi koy bàyyi xel France ànd ak Lacazette ñooy jàkkaarloo ak Argentine ànd ak Nicolas Otamendi kon gaañi xaar ko journal bi tamit ñëw na ci làmb ji rawatina GNG bi ki ko jiite jamono jii bëgg-bëgg bi ñenn ci mbër yi am moo di mu jugee foofee mi ngi tudd Birasen Birasen moomee moo jiite GNG bi jamono jii waaye mbër yi may waaja lim ñoo ngi liggéey ngir ñu wàcce ko foofee bokk na ci Balla Gaye numéro de Ama balde Gris Bordeaux ba ca Tapha bëgg-bëgg biñ am moo di Bira seen jógee ca boppu GNG ba ndax nee nañu mbër yi dañoo sonn lool rawatina dagg gi ñuy dagg seen xaalis te dagg googee ñu koy dagg xamuñu ci ban motif la ñu koy daggee maanaam lu waral loole ak xaalis bi fan la jëm loole ump na leen lool moo tax mbër yi li ñu bëgg moo di Bira seen jógee fa muy Balla Gaye numéro 2 Ama Baldé Gris Bordeaux ba ca Tafatine ñu jugee Sénégal wutali Portugal fekk fa Oxogo João Neves le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa moom nag dina dem ca Paris tey jii ñu xool yaramam bu lépp yembee mu xaatim contrat maanaam visite médical ndax jubo ci lépp am na ci diggante Benfica bi ko moom ak Paris li ñu jubo ci xaalis nag mi ngi toll ci soixante dix millions d'euros waaye soixante millions yi mooy xaalis liquide dix millions yi bonus la olof di ko wax buuñaa tey jii la ñu koy xaar ca Paris mu wàcc amal visite médicale yi moom João Neves bu dee doomu Portugal bii di Renato Sanches moom day juge ca Paris dem ca Portugal waaye kat Paris da ko able képp ca Benfica moom sax jamono ji yegg na ci réewu Portugal nee na bég na lool te yàkkamti na saison bi door mu doxal ak waa Benfica loolee la xamle moom Renato Sanches bu dee Vitor Bruno mi tàggat Porto moom waar wu mag moo koy sam samedi maanaam défi bu mag li ko waral moo di Porto day jàkkaarloo ak Sporting bu Portugal loole nag final super coupe du Portugal la samedi la koy amal waaye Porto nag mosuñoo am ndam ci kanamu Sporting bu Portugal mu soxal final super coupe du Portugal samedi nag incha allah défi bu mag moo koy xaar moom Vitor Bruno mu nekk gan nag foofee ci Porto kon waar wu mag a koy xaar loolee la surnal bii di xam le ñu jugee Portugal wutali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport athlète yi wane seen bopp ca jeux olympique ba nekki doomu Angleterre la journal bi fësal ca xët wu njëkk waaye fàttewul yogoon club yogoon club moomee nag équipe national bu Angleterre ngi ko doon bàyyi xel ngir mu nekk seen sélectionneur maanaam mu tàggat seenub équipe national ginnaw bi Gareth Southgate jugee ci équipe national ba waaye moom mii di yogoon club nag démb indi xabaar bu rëy xamle ne tekki na ay jajjam. maanaam bàyyi na coach dootul tàggat benn club waxuma la équipe nationale kon nag waa Angleterre yaakaar gi ñu amoon yàcceeku na ndax kat yogoon club nee na bàyyi na coach dootul tàggat benn réew dootul tàggatit benn club équipe nationale bu Angleterre rawatina fédération bi ñoo ngi ko doon bàyyi xel bu baax. ñu jugee Londres Angleterre wutali Allemagne wàcc Berlin ca capitale ba fekk fa journal bii di Kicker Bundesliga 2 bi la fësal ca xët wu njëkk wa suba nag la ñu koy door. door waaye Bundesliga 2 boobee nag bi ñu ko dooree ak tey jii suba lay am cinquante ans kon nag histoire du ko fàtteeti muy Bundesliga 2 boobee waaye nag match bi koy ubbi suba match bu nara neex la am mbuur mooy jàkkaarloo ak Cologne kon gaa ñi xaar leen ko ndax ñaari club yu mag lañu journal bi tamit ñëw na ci Pascal Gross moom ma nga woon ca Brighton milieu de terrain bu mën li muy def la xaatim na contrat ci Borussia Dortmund waa Borussia Dortmund li ñu bëgg moo di gone gi doxal ci saison bi ndax seeni palang teg nañu ko ci ay tànkam mu taxaw ci digg bi di doxal ndax li muy def mën na ko lool muy doomu Allemagne boobee tudd Pascal Gross ñu jugee Allemagne wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport mayneur sa le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa gone gi ca Atalanta Bergame la nekk club bu ñu naan Juve dañu ko bëgg démb nag Juve googee def nañu offre offre bi mi ngi toll ci quarante cinq millions d'euros waaye kat club bi ko moom di Atalanta Bergame li ñu le moo di loolee ndaw na lool ñun li ñu bëgg ci doomu Pays-Bas bi moo di soixante millions d'euros waaye jamono ji nag waaye yuufe ànd ak Thiago Motta bàyyeeguñu li ñu bëgg moo di amalaat beneen offre ngir jëlee ko ca Atalanta Bergame ndax moom mii di Coupe Mainers nee na Juve la bëgg a dem jàppale Thiago Motta jamono ji nag waa Juve ñoo ngi baral jéego yi ngir xaatimal ko contrat journal bi tamit ñëw na diggante Napoli ak Paris jamono ji seen diggante dafa ñagas lool li ko waral moo di président wu Napoli tudd De Laurentiis dafa génne xabaar boo xam ne neexul dara waa Paris rawatina seenu président ndax De Laurentiis nee na waa Paris fay nañu deux cent millions d'euros ci ñaari gone yi muy Kvaratskhelia ak Victor Osimhen waaye ñun waa Napoli ñoo bañ loole nag neexul waa Paris ndax président wu Paris li mu le moo di waxtaan boobee fóotum biir la ndax ñun ñaar ñoo ko séqoon siiwal jamono ji nag loolee naqari na lool waa Paris ànd ak seenu président journal bi tamit ñëw na ci doof bi moom nag daanaka léppam yemb na ngir mu jógee ca Girona dem ca AS Roma jàppale Daniele De Rossi li ñu juba cib xaalis nag mi ngi toll ci trente virgule cinq millions d'euros waaye tamit am na bonus bu ca toftalu olof di ko wax buñaa mi ngi toll ci cinq virgule cinq million d'euros waaye sa su ko waa AS Roma jaayaatee waa Girona dinañu ca am dix pour cent ci loole la ñu juboo bu ñu sukkandikoo ci surnal bii di Corriere dello Sport ñu jugee Corriere dello Sport de Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport Raffaele Leao le journal bi fësal ca xët wu njëkk dëkk wa doomu Portugal bi nag bu ñu yeggee ci weeru novembre dina dégg papa maanaam dina doon bàyyi li ko waral moo di jamono jiimay wax ak yéen soxnaam dafa wan na lor te kat bi ñu ko xoolee ay seex la maanaam ñaari doom la soxnaam war a am kon nañu ko ñaanal mu mucc ci jàmm waaye moom Rafael Leao nee na gone yooyee bu ñu juddoo kenn ki def koy tuddee Rodrigo keneen ki mu tuddee ko Thiago loole la xam le moom Rafael Leao ci weeru novembre bu ñu ca yeggee dina dégg pappa maanaam dina doon bàyyi loolee la journal bi xamle ca jamono joojee nag kii tàggat AC Milan mi ngi koy ñaax mi ngi tudd Fonseca Fonseca moomee lim ko xamal moo di man xam naa la bu baax jour bu mag nga li ma lay ñaan moo di nga gën a xarañ ci kanamu kang yi boo jàkkaarloo ak góol dóoral sa tànk diis na te mën nga kaadare moom loolee la ko xam xamal te Ibrahima Vigsi mi nga xam ne kilifa la ca club boobee tamit kàddu yooyu la ko dénk nee nañu ko boo jàkkaarloo ak camp yi dóoral ndax sa tànk jub na te diis na ci fàttali AC Milan googee biig ci guddi gi dañ doon jàkkaarloo ak Real de Madrid mu soxoloon match amical AC nag moo am dam benn bal ci dara bit ba am ca match boobee doomu Nigeria bi ñu naan Chukwueze moo ko dugal AC Milan ànd ak Fonseca am ndam ci kanamu Real de Madrid ñu jugee Italie wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay moom atletu Espagne yi yëngu ca jeu olympique ba le journal bi fësal ca xët wu njëkk waaye fàttewul équipe nationale féminine bu Espagne ñoom nag jeu olympique boobee ñoo ngi fay amal jaloore ñetti match la ñu am am ñetti ndam kon qualifié nañu ca quart de finale ya match mi ñu doon mujj jongante ci phase de poule yi Brésil lañ doon jàkkaarlool démb gagné ko ñaari bal ci dara Alexia kenn du leen nettali quart de finale jeux olympique bi te jaloore la ñu amal ñetti match ñetti ndam ñu jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay Rafael Nadal le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa moom nag ma nga ca jeux olympique ba di doxal waaye yemul ci moom képp ndax doomu Espagne yi ñoo ngi wane seen bopp foofee waaye kat bu dee équipe nationale féminine bi moom kenn du ñoom ca jeux olympique boobee ñetti match ñetti ndam neuf poñ la ñu am démb Brésil lañ doon jàkkaarlool gagné ko ñaari bal ci dara waaye Brésil googee démb dañoo am carton rouge bu leen mitil lool ndax seen yaakaar gi la ñu rouge soixante cinquante unième minute ci la ñu ko jox carton rouge mi ngi tudd Marta Marta moomee taxawaayam ci équipe nationale féminine bu Brésil am na solo lool waaye dafa teel a jël carton rouge journal bi tamit ñëw na ci Nico Williams xibaar yi xeeñ jamono ji nag neexul dara ci waa Barcelone ndax mën naa am mu toog ca Athletic Bilbao doxal ndax jamono ji xibaar yi génn yépp loole la ñu xamleegum mën naa am nag mu toog foofee beneen saison te bu fay toog tamit mën naa yokku kuloosam loolee la aas yéene kay xamle journal bi tamit ñëw na ci match amical bi doon dox bërki bii ci diggante Barcelone ak mën Manchester City Hansi Flick mi leen di tàggat dafa indi fukki gone ak ñaar yoo xam ne ay gone yu ndaw lañu nekk ca Masia ba football loo leen maanaam douze jours yoo xam ne ay xale yu ndaw lañu kon xale yu ñoo doxantu ci kaw mën Manchester City bo Pep gar loolee la la AS yéene kaay xamle. ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa sport waa Barcelone le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa bërki bi dañ doon amal match amical ak mën City yi doon jàkkaarloo ak Manchester City loolee du samay kaddu kaddu sport la ndax match boobee bëri woon na ay xale lool ca cëppaandaw ga nag dañoo def match nul 2-2 ci tir au ci la Barcelone amee ndam bitu Barcelone yi ñii ñoo ko dugal Pablo Torre dugal na ba ci gone gi tudd Pau Victor Barcelone ànd ak Hansi Flick am seen ndam lu njëkk nag ca tir au but Hansi Flick moomee gan la ca Barcelone waaye match amical boobee mu doon amal ci réewu Amérique moo nekk matcham bu journal bi tamit ñëw na ci Olmo Olmo moomee nag waa Barcelone defoon nañu offre bu njëkk waa RB Leipzig gàntal journal bi nee na ñoo ngi waajal beneen offre ngir xaatimal ko contrat bu dee directeur sportif bu Barcelone tudd Deco moom Dani Olmo moo ko gënal fuuf Nico Williams ndax ci mbiru Dani Olmo ci la gën a sawar ndax nee na Dani Olmo moo gën a polyvalent maanaam moom dafa xarañ lool foo ko teg ca kaw mën naa doxal milieu de terrain excentré droite excentré gauche ba ci attaquant de pointe teg mën na faa dem doxal moom moo ko gënal fuuf Nico Williams te ci ay mbiram la gën a sawar ñoo ngi waajal beneen offre nag ngir jëlee ko ca RB Leipzig loolee la journal bii di xam xamle. ñu jugee esport jël Mundo Deportivo moom it waa Barcelone la fësal ca wu njëkk wa ak match amical bi ñu doon amal bërki bi Barcelone nag ay gone yu ndaw la génne gone yu doxal bégee am match bu ama am solo boo xam ne amal nañu ko ci kanamu Manchester City bu Pep Guardiola ko 2 ca tir au but la ñu téqalikoo gone yi nag doxal nañu rawatina gone yii may waaja lim ndax kasado doxal na ca match boobee ba ci gone gi tudd Bernal ak seen góol bii nga xam ne vingt ans képp la am te keroog kat wane na boppam ca match boobee mi ngi tudd Astralaga Astralaga moomee doxal na ca match boobe ndax ci kan yi la ko Hansi Flick teg mu taxaw doxal kon nag waa Barcelone am nañu yaakaar ci seen ëllëgu gone yooyee journal bi tamit ñëw na ci Dani Olmo jamono jamono ji waa barcelone ngi baral jéego yi ngir xaatimal ko contrat moom doomu espagne bi barcelone defoon nañu offre waa RB Leipzig gàntal